dem ci fa nga xam ne moo di monument bi mais teewul nag foofule ay pneu yi ñu fa taaloon ñu bare bari ci wuy takkadeer yi ànd ak ay militaire ñoom ñoo daldi rek wéyal liggéey boobule maanaam dindi li a continuer xamante ni moo di ca monument ba teewul tamit fu mu toll nii daanaka jafe-jafe daal dina am ci biir koñ ndaxte ndaw ñi nee leen comme nañuy def moo ci gën a doy waar ndaxte fii xaar yàlla dafa xaw a lëndëm ngir nga mën a amal liggéey bi day jafe donc ndaw ñi na am tuuti rek bu fekkee woto takk seen biir sax teewul dañuy tëmbal ay xeer ci biir moonte takk deer ñoom dinañuy sol ay casque yu lay nekk mm. donc da ngay ci biir oto bi moonte biir oto boobu la sax léeg-léeg xeer daal di tëmb ci kaw oto bi mm. mais loolu yëpp daanaka ab jaayante lay doon ndax li ñuy def lu nekk lu ne askan yi moo tax ñu koy def mm. mais nekkuñu pour mitiral wala pour def kenn lu ko ñaaw kon ñoom ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir kër yi def doxali nii ni mel a xool xoolaat mën liggéey ci li nga xamante ni loolu lañ ko bëggee ndax bu ñu nekkee ci mbedd mi ngir daf seen bànneex loolu moo tax Seneweb daal di web def léppam maanaam ngir jege askan yi dégtal xibaar ci ne ngir dégtal nga xam ne moo fa daal di xew mais teewul daal maa leen jafe-jafe ngir wéyal suñu liggéey ndaxte ñu baree bari ci ñi nga xam ne ñoo di ndaw ñi dañoo laqatu ci biir ko ñi téye seen ay xeer waaye tamit di taal ay pneu ngir rek baare yenn dem dindiwaale ndax fay nañ taal ba fa nekkoon ba daal di avancé ak seen ay ndaamaar jëm fa nga xamante ni moo di ci diwaanu Patte d'Oie ku nañ leen topp rek daal di leen dëgtal li nga xam ne moo di image yooyu lay ci kanam tuuti